ña doon kaañi kankaan mbaag lu waay soxla boo fay dem muy faj loola saatani tabeek topp yàlla ak moo sax fa Mustafa ki la am daay fii saayirin ba dabaatinin inaayatoo wilaayati Mustafa Cheikh Moustapha Fall Falilou mooy joxe ab nuyoo bu bàyyi ko ci kilifaam Serigne Falilou Fall jëwriñ Serigne Modou Binta jëm ci jëwriñu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke jii toog muy Cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke mii Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacke nee ci turu Serigne Fallilu jëwriñu sëñ Modou Aminta Fall ñu ngi ñaan suñu borom mu dolli ak yàggam muy nuyu jëwriñu Cheikh Modou Moustapha ji nga xam ni ñoo ngi jot ci suñuy xol ni soppeb ñu baax ñëpp te ku dem sax li ñu jort am na. ba Seyxul Xadim di woote. ba ko maam ji ne asalaamualeykum. mu ne ko waaleykum salaam. ca la lépp leere ca la lépp jóge kon jooje rek moo ne nekkaat nii. Serigne Ahmadul Muxtaar. mi jiite xadaratu Daaru Xudus. di jëwriñu Seex Mustafal Karim. mi ngi leen di nuyu. mi ngi leen di fay nuyoo. di leen sargal. di leen ndokkeel di leen sant di leen gërëm yow sëñ Fallou Fall am sëñ Mourou Aminata di jëwriñam ak Cheikh Moustapha ak ñi ñu àndal ñëpp ba ca jëwriñ ja kaw di sëñ am di Moudou Mbenda Fall am di Moustapha di jëwriñ ak jëwriñam sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Moudou Moustapha sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ñu naan ko sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng macha allah macha allah mbir mi day sëriñ baa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen béggee bu baax di xamle ne bis bii ngeen ñëw tey mooy bis bu bis bi nu waroon sëñ Tuubaa bis la boo xam ne ci la say xal xadiim gane jamono ñëw adduna mooy isrona muharram bis la boo xam ne ci la sayxul xadiim génn àdduna ñibbi noppalu ji addunaam jëpp moo surgaam boobee di maam Cheikh Ibrahima Fall noppaluwuñ ci de nelawuñ ci de du guddi du bëccëg ay tool lañ ko defoon bis bii ci lañ door a noppalu ci la sayxul xadiim wax ne sun borom engagé naa sama adduna bëgguma cee noppalu xanaa bu ma faatoo rek walij alil mawta raxaatin wa mafrahatan min kulli charrin wa kar bi daax yàllaaw bala maa bég daal wala ma noppalu damaa daje seeg yow laxasaayu naa ma tekki sama laxasaay lu dul rekk nga ne ma àjjanaa ngi nii axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal naa wal minna li feeg dugguma aljanna du ma dindi sama laxasaay noonee la ko defee ca sangam ba Seydina Muhammad waaye maam Cheikh Ibrahima Fall moom it noonu la ko defee ci moom te bàyyiwu ca dara mi ngi leen di séeral ne sagal ngeen lislaam ndax di bii suñ boroom ca mbaaxam nga ak yërmaneem je nee yéen jullit ñi na ma jox seeni asaka ku ci am fukk na ma jox benn ba sarax ma ko te moo ko moom de waaye yëg nañ ne islaam jëpp seede nañ ne maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñooñam sarax ba lañ jël ñoom yóbbu seen kër waaye juróom-ñeent ya dañ ko jox suñu borom de dañ ko jox yàlla suñu borom féete woo sarax bi loolu mën nañ ko ku ñoom seen lépp dañ ko jox lislaam fu li lislaam ñoom ñi ñoo koy yëkkati rono nañ lépp gën a suufe ñëpp ngir bëgg lislaam jóg ngir bëgg lislaam tege ca kaw fu lislaam kawee ñoom ñi ñoo ko roonu ci suuf ñenn ñi dañuy jàppoo ñiy jagat yi mais ñoom dañ koy roof ci suuf lañ koy roofoo yëkkati mu jóg noonu la leen suñu borom def loolu nag rëy na ku koy sikki sàkk it da nga da nga nekkul ulul albaab waaye ulul albaab ñi yàlla di waxal ci alxuraan ñooñee xam nañu lii ndax yàlla waxul lépp ñëpp yàlla waxul lépp ñëpp kon foofii ñëpp fa bëgg nekk Cheikh Ibra dey am na ko ne woon sa diine dama koo xeeb Ibra Fall mu ne ko maa ko gën a xeeb maa ko gën a xeeb lu ma jo jur dox jox diine lu ma am jox diine dama amul leneen de nekkoon ma dolli ko ca kooku kenn du moroomam yal na ko yàlla fayal mook sangam ba Cheikh Al Khadim hmm, mu ne sëriñ Moustapha nee na sëñ Fallou moom sëñ Muudu Aminata Fall nee na ñaan seen ñaanu njaam sa bii yàlla na bokk ci mujjisaati sunu boroom yi mi ngi ñaan sunu borom nga toog fi ba mu yéem ñu baax ñëpp barki Cheikhul Khadim amiin waaw waaw